mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jote ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé ak am mbégte am ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Mbaye Sène moom docteur mbay Sène nekk président du collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal waaye tamit nekk endocrinologue diabétologue nutrition docteur Mbaye Sène ñu ngi wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu dañ lay sant gërëm la ci disponibilité bi nga xamante ne manifesté nga ko ngir répondre ci suñu invitation bi de. merci euh, Soxna Fatou ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu seen auditeur yi ñuy déglu si Rewmi FM jërëjëf. Euh, docteur dañuy tàmbaleeg waxtaan bi ci li nga xamante ne moom moo di kuréel bi nga xamante ne jiite nañ ko ñu gën ko xam euh, ci COMES euh, tey ji ñu bëggoon rek xam leeg auditeurs yi kuréel bii di COMES daanaka lu mu wundu COMES ci tubaab moo wundu collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal maanaam di mbootaay bi ëmb bépp docteur bu nekk Sénégal di def luñ tuddee spécialisation muy yokkum xam-xam ginnaaw bi nga soutenir sa doctorat d'état en médecine muy fii ci Dakar ci université Cheikh Anta Diop waaye tamit ci région yi li ci mel ni euh, université de Thiès li ci mel ni université de Saint-Louis ak yeneen université yi nga xam ne ñu ngi ñëw muy Bambey ak Ziguinchor hmm. waaye tamit ci biir commerce xàmmewuñu kuy sénégalais ak ku dul sénégalais ndax maa ngi fàttali ne suñu réew ci Sénégal dafa nekk réew bo nga xamante ne lu bëri ci Afrique fii la ñuy ñëw pour former wu ci wàllum spécialisation quel que soit le domaine mm-hmm. donc commerce noonu la bindoo euh, mu ngi daté depuis deux mille vingt et lañ ko créé ba ren yaakaar naa ñu ngi deux mille un donc ba ren ñu ngi ci euh, am na ñaar fukki at ak benn mm-hmm. bu doon xele ñu ne daal mu ngi doon waxambaane bu bu taxaw mm-hmm. Euh, mu mel ni wax nga ko ci sa biir wax commerce euh, du ay étudiants sénégalais wala du ay médecins sénégalais rek le le le le boot am na ñoo xamante ne ñu ngi bàyyeeku ci sous région bi ñëw rek ci casquette boobu léegi Euh, naka nañuy def ngir adhérer ci kuréel bi di COMES euh, docteur mbay Sène adhérer COMES yaakaar naa lu ko gën a yomb amul dafay laaj nga nekk docteur d'abord université bu Sénégal nangul la nga nga def liñ tuddee spécialisation su ko defee rek su la faculté joxe autorisation nga def spécialisation Sénégal boo contacter sunu trésorier nga jënd carte de membre bi nga xam ne fi mu ne nii dix mille lay coûter Euh, dix mille francs euh, annuellement su ko defee membre officiel commerce la waaye tamit même boo inscrirul te nga nekk docteur en spécialisation Sénégal commerce bi mooy association bi nga xam ne moom moo la yelef parce que suñu autorisation ministère de l'intérieur moo ñu ko délivré mu nekk donc associé institution légale bi mën a assurer la défense matérielle et morale de tous les docteurs en spécialisation du Sénégal. Mm-hmm. Euh, loolu ci ñi nga xamante ne certainement ñoo nekk ci dëkk bi la mais bu fekkente ne da nga bàyyeeku ci sous région bi ndax condition d'adhésion yi ñoo bokk. ñoo bokk xamewuñu kuy sénégalais ak ku dul sénégalais li ñu xamee rek mooy docteur nga di def spécialisation dans une université sénégalaise Mhm. Euh, euh, euh, te jii docteur xam naa am xayma ci lim bi nga xamante ne ñoo adhéré dina nekk lu jafe mais ci misaal rek boo ñu doon jox ay chiffres tey ci docteur yi spécialisé bokk ci seen kuréel bi lan nga ñu ci mën a wax. liñ ci mën a wax mooy bu soo xoolee ci statistique année universitaire deux mille vingt vingt vingt mille vingt et un mhm. docteur yi ni yi def spécialisation. nga xam ne ñoo bokk ci université Cheikh Anta Diop ñu ngi woon ci limu mille quatre cent quarante docteurs en spécialisation allant de la première année de spécialisation jusqu'à la cinquième année te loolu bokkul ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci université de Thiès mën nañ ci leen xayma euh, à peu entre cinquante ba cent ak ñi nekk Saint-Louis euh, un peu moins avec une trentaine ou quarantaine de docteurs en spécialisation ci xayma daal mën nañ wax ne association bi mu ngi autour de mille cinq cent docteurs en spécialisation mais li jara laaj mooy mhm. ñaata ñoo ci Sénégalais parce que Sénégal effectivement depuis euh, suñu faculté de médecine am na cent ans. Mm de ce fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une euh, ni ñu koy tuddee ci wolof euh, dafa nekk université bi nga xamante ne adduna bi seen Afrique yëpp fii la ñuy ñëw di jàng spécialisation moo tax plus de cinquante plus on peut dire sur les statistiques de de de, de l'année dernière euh, presque soixante pour cent ay étrangers la ñu. Mhm. moo tax hôpital boo dug rek dafay mel ni ay naar ngay gis sunu mbokk yi. surtout naar oh, bari nañ fi parce que ñoom ñooy ñëw jàng. pour xam après dellu seen réew euh, sénégalais yi bariwuñu woon ñuy def spécialisation euh, pour revenir à ça c'est depuis 2018 mm-hmm. président son excellence le président Macky Sall ci la décidé ne day yokk condition wu médecins spécialistes yi jëlee bourse bi cent cinquante mille indi ko trois cent mille ci boobu 2018 ba léegi nag ah sénégalais yi dañoo xaw a dañoo xaw a ñëpp daw si ne dañuy def spécialité spécialisation euh, parce que bourse bi dafa xaw a commencé takku trois cent mille c'est vrai que c'est très insuffisant mais euh, loolu moo xaw a Sénégal yi mais avant 2018 pour nga gis docteur en spécialisation bu nekk Sénégal sénégalais dans les hôpitaux c'était très très rare mm. loolu la donc étranger ñoo ci ëppoon waaye ñu ngi gis ne depuis 2018 tendance baa ngi changé ñuy espérer mu continuer noonu euh, yaakaar naa dinañ ñëwaat ci euh, métit yi nekk ci biir ak mm-hmm. conditions yi ak li ñuy xaar ci état mm-hmm. pour que dynamique boobu mën a continuer mm-hmm. parce que l'année dernière 2021 seulement 36 pour cent avaient la bourse de spécialisation. 36 pour cent des demandeurs l'État du Sénégal euh, trente-six pour cent la joxe donc plus de soixante pour cent n'avaient pas de bourse ils n'ont rien dañoo toog euh, seen waajur continue di leen fayal spécialisation ba nga xam ne xaw na cher quand même mhm. cinq cent mille francs jusqu'à un million moom ngay fay université at bu nekk at bu nekk docteur bi loolu lay fay université entre cinq cent mille ça dépend des spécialités allant à huit cent cinquante un million mhm. loolu lay université at bu nekk pendant quatre ans ou cinq ans mhm. pour être après un spécialiste en exemple un pédiatre un gynécologue un endocrinodiabétologue un cardiologue et cetera. Mm-hmm. loolu nag dafay laaj état du Sénégal gën a jàppale cagnotte bi nga xam ne mooy bourse de spécialisation bépp doomu sénégalais bu bëgg a defi spécialisation état accompagner ko soit mu jox ko bourse de spécialisation bi exiger ko après mu liggéeyal état wala état recruter ko à la fonction publique. Mm-hmm. loolu tamit day tax docteur bi mën a nekk à l'aise ndax yaakaar naa xam-xam moom pour Euh, ay pro yenn problème yo sew yi nekk sa ginaaw mhm. ay wàllum dépense ak carburant ak euh, ticket bus yooyu nga mën ko assurer si ah comme ça nga mën a concentré wu ci njàng mi. pour être un spécialiste bien formé mën a répondre aux besoins de santé du pays. Mhm. Euh, sànq ci sa biir wax docteur dama la dégg mooy bi ma lay laaj ndax mën nga ñu wax lim bi nga xamante ne moom moo soxal médecin spécialisé wu mais mu mel ni wax nga ne lim bi donte ñàkkut a takku waaye étranger yi dafa xam naa ne xaw nañ cee am doole tey jii le fait que mu xaw am est-ce que bu dee disparité laa ko mën a tuddee wala mu am différence ci seen lim ndax dafa gàllankoor ci seen euh, façon ni ngeen di liggéeyee. Euh, gàllankoor bi benn la rek mooy sunu réew moo dul am ay spécialiste nekk buy formé bu baax lu am am solo la. loolu lu ñu ko may mooy euh, yàgg faculté de médecine moo moo moo moo moo moo njëkk dans l' Afrique de l'Ouest en terme de d' école de médecine loolu moo tax ñu am qualité bi ñu am am également ay professeurs de qualité yi nga xam ne ay résultat yu yu très satisfaisant la ñuy def au concours CAMES loolu yëpp tax Sénégal nekk dëkk boo xam ne ku bëgg a spécialisé nga ne xaaral ma dem Sénégal spécialisé waaye nag li jaralaaj mooy est-ce que doomu réew mi ñu ngi toog di spécialisé wu. parce que yaakaar naa at bee passé l'État du Sénégal a construit des hôpitaux de très bons hôpitaux. dans les régions muy Touba muy kafrin muy Kédougou ak feneen ak feneen. Mm-hmm, mm-hmm. waaye li jaralaaj mooy est réew mi am na ay spécialistes yu doy. Mm-hmm. yaakaar naa sama tontu ci loolu mooy déedéet. lu ko waral parce que doomu réew mi mënuñu jàng pendant neuf huit ans soutenir seen doctorat d'état en médecine. Uh, seen waajur seen bopp seen soxla di leen xaar ñu bëri amuñu dara war a nekk dimbalu jaboot ñu toog ne dañuy defiwaat encore spécialisation quatre ans ou cinq ans fekk état du Sénégal jàppale wu loolu dafa métti. Mm-hmm. imaginez koo xam ne say waajur ñoo la jàppale yaa ngi jóge ñaaxaar say waajur di jaay ñebe di jaay lu nekk di la jàppale ba nga nekk docteur. am lu ñuy xaar ci yow njaboot di la xaar tak soxna di la xaar ak leneen ak leneen. Mm-hmm. yow nga nga toogaat continuer na leen day continuer day leen ma jox may fay spécialisation boo xam ne li ci gën a tuuti cinq cent mille la ba un million pendant quatre ans loolu nekk loo xam ne dafa jafe mhm. loolu nag lu muy laaj mooy état du Sénégal il faut mu continuer ci dynamique bu mu nekk nii mu gën a góorgóorlu di fayal docteurs yi luñ tuddee euh, seen bourse de spécialisation mhm. naam am na effort bu fi nekk depuis 2018 mhm. waaye nag doyul je parle des statistiques. 2021 mhm. mhm. seulement 36 pour cent des demandeurs de la bourse ont mmh. eu mmh. la chance am bourse donc 60 pour cent amuñu. Mmh. loolu nag lu néew a néew la lu jar laaj la. te yaakaar naa démb en conseil des ministres hier mercredi le 3. j'ai vu un communiqué où en conseil des ministres euh, ngu euh, jiitu jiitu réew bi président Macky Sall mu ngi jox ndigal. Euh, ñi nga xam ne ñooy ministère des finances ministère de l'enseignement supérieur ak ministère de la santé. ne leen waxtaan leen xool naka la ñuy ñongalee spécialisation Sénégal. may wax foofu rek état bi loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. mesure salutaire mesure salutaire waaye. ñu ngi leen di xaar ci réalisation bi surtout. c'est vrai idée président joxe na ko waaye nag li gën a am solo fi mu ne nii ñi war a toog toog waxtaan waxtaan xam réewum Sénégal en termes de planification. lan la soxla fii ak cinq ans fii ak dix ans fii ak trente ans. Mhm. dans chaque domaine ñu def état des lieux xam ñaata spécialistes lañ am ak ñaata lañ soxla et quelles sont les normes de l'OMS et sur ça état dina mën a dégager des des des des. des perspectives, des perspectives en disant que dans tel domaine fa voilà bi ma am et je veux le résorber dans cinq ans dans dix ans et cela permettra euh, aux jeunes qui vont venir de pouvoir donc. xam spécialité bu ñu bëgg a dugg état jàppale leen te jàppale bi du dara du doon moyen. Mhm. la santé niñ koy tuddee elle est chère c'est vrai mais il faut que l'état encore dugal si loxom jàppale spécialistes yi jox leen bourse de spécialisation recruter leen à la fonction publique tout en sachant que ki état jox xaalis jox la moyen yi. Mhm. soo paree tu as tu dois être redevable à cet tu mhm. dois être redevable à population ñi nga xam ne ñoo cotiser seen impôt jox la ko nga jàng soo paree nga liggéeyal leen ay x année loolu état moo koy déterminer. Mhm. donc ci question boobu rek ci tënk mooy on salue l'initiative mm mais ñu ngi xaar état ci concrétisation et on est tout à fait disponible pour échanger pour leur donner les données parce que je crois que faut toujours travailler sur des données mhm. pour faire la planification et dégager les perspectives mm justement ci wàllu woowu sax euh, gàllankoor bi wax nga ko mais à chaque fois da ngay dégg ñenn ñi di déplorer lu ñuy duppee suñu plateau médical ndax lawul ba foofu aussi plateau médical euh, c'est vrai on peut dire que am na problème d'accord mm -hmm. mais état mu def effort bu bëree bëri depuis quelques années quand même mais surtout les ressources humaines loo am plateau médical te amoo les ressources humaines de qualité ça ne peut pas avancer mhm. tey tey tey bu benn diabétique euh, daan woon euh, fële ci dëkk ba fu sori amuñu médecin bu ko mën a xool si tu as que des infirmiers am na fu seen limite yem même médecin bi sax am na fu limitam yem il faut mhm. spécialiste bi mhm. plateau technique dangaa war parallèlement nga former des spécialistes et c'est mhm. ça qui permet l'équilibre et c'est ça qui permet mhm. une bonne gestion du malade mhm. donc c'est bien que l'État du Sénégal a fait des efforts sur le plateau technique même si il y a des choses qui restent mais il faut parallèlement qu'il continue qu'il mhm. continue donc à mettre sa à la pâte mhm. en termes de planification pour la formation des spécialistes. Mhm. d'accord euh, ñu des ci wàllu woowu euh, commerce di kuréel bi nga xamante ne moom moo ëmb médecin pharmacien yi waaye chirurgien dentiste yi nekk fii ci Sénégal euh, ci lu yàggul dara ci Euh, deux mille vingt et bi ñu génn août jàpp ba décembre amal leen ngeen ay mouvement d'humeur def ngeen fi ay grève quarante huit heures soixante douze heures renouvelables boobu le temps nag da ngeen doon sàkku ay meilleures condition euh, euh, conditions notamment ñu jëm ci lépp lu jëm ci seen wàllum bourse waaye allocation de stage rural yi ñu ñëw rek ci li nga xamante ne moom moo di eh, point bi di allocation bu stage rural bi nga xamante ne eh, taxoon na takk brassard rouge yi tey ji ba xam am ngeen ci ay satisfaction d'abord dañ may jéem a tënk li taxaw ñu dem grève euh, ñun dañoo seetlu ne mm. lu tax lu bëri lu tax docteur en spécialisation bi nekk Sénégal on l'a réduit à un simple étudiant c'est simplement parce que amuñu texte bu bu encadrer ce docteur en spécialisation loolu nag moo taxoon ñu toog réfléchir ñu xam ne tant que changé wuñu texte yi nga xam ne ñu ngi fi depuis 1960 il faut que les choses avancent le monde avance. Mm-hmm. moo taxoon ñu ne il faut qu'on mette en place un statut clair du docteur en spécialisation. Mm-hmm. sans ça on peut docteur nga baal ma sama émission bi ci ci wolof la euh, mais dafa mel ni yow euh, français bi ngay xaw xaw ko xaw a nuancé noon rek pour bu ko defee auditeurs yi gën a comprendre li wax ndax li ngay wax dafa am solo. <laughs> waaw xam naa ne français bi olof bi day xaw a dis mais góorgóorlul rek fu ñu ñuy déglu. olof bi olof olofu olofu séeréer la xam naa dañuy dañuy dañuy góorgóorlu ci ci olof bi rek li ñu li ñu bëggoon tënk mooy dañoo seetlu woon ne daal li ñu manqué ci nekkinu docteur en spécialisation Sénégal mooy amuñu benn cadre. Euh, sur le plan juridique mm. bu bu leen tënk ñu xam seen liggéey seen wareef mm. ak aussi seen devoir mm. ak seen droit loolu nag moo taxoon ñu ne état réfléchiral mais il faut nga créer lu tax lu ñu tuddee le statut du docteur en spécialisation euh, loolu dafa manqué te loolu moo indi problème yu bëri bëri bëri docteur en spécialisation bi mooy liggéey hôpital di consulter mooy nekk hospitalisation fekk nga ma hôpital ma garde ci gérer maladie ginnaaw yàlla maa maa yor seen responsabilité ak leneen ak leneen. Mhm. di dem bloc di opérer di fanaan hôpital. alors que man mii nekk docteur en spécialisation su ma feebaree bugga a faju ñu ne ma fayal étudiant nga université moo la envoyé su ma laajee motivation hôpital bi bi nga xam ne vingt cinq pour cent recettes yi ça doit être partagé entre le personnel ñu ne ma non yow doo ci bokk doctorat spécialisation ba mais bu fanaan hôpital jotee ñu ne ma fanaanal. Mhm. bu consultation jotee ñu ne ma consultel ak leneen ak leen te kenn du leen défendre c' est le système. Mhm. c' est des textes écrits depuis 1960 ñu ne leen nag changé na à l' époque amu woon spécialisation amu woon yooyu mais léegi dafay laaj ñeen defar ay textes yu tax docteur bi ñu xam lu ko tënk ay droit et ses devoirs loolu benn poñ la woon mooy statut. statut boobu moo tax tey suñu dëkk daam yi nekk spécialisation am 30 ans am jëkkër dañu leen ne amoo leen droit ëmb. a ah. wala soo ëmbee tamit da ngay liggéey si ba jour bi ngay wus yi ne laa demee da ngaa war a continuer ñëw liggéey si. mais docteur doguma la loolu tamit xaw na metti te compliqué de wala. looloo am nag demal gynécologie tout de suite foofu boo ëmbee. amul mu amul amul amul congé de maternité alors que ñoom ñoo koy digle pédiatrie ñoom ñoo koy digle ñooy wax population bi congé de maternité et cetera allaitement maternel te ñoom ci seen bopp docteur yooyu professeur yooyu koo ci jege ne la damaa bëgg congé de maternité yow jigéen bi nekk docteur en spécial am 30 ans 40 ans ñu la non non amoo ci droit parce que tu es en formation quelle aberration du système c'est incohérent on peut comprendre que qu'il faut encadrer ce congé de maternité parce que le docteur est dans, une, dans un cadre de spécialisation, dans un cadre d'apprentissage. Mais il faut toujours encadrer pour faciliter ces questions humaines. Mm -hmm. Je pense que c'est une, une, question de dignité humaine. Il faut que euh, ñoom ñu góorgóorlu pour jox jigéen ñi ëmb ñu mën am congé de maternité et question boobu c'est une question fondamentale. Mm-hmm. ñu ngi ciy liggéey te am tant que résoudre duñ ko duñ dellu ginnaaw ci question congé parce que c'est une question de dignité. Mm leneen li taxaw ñi dem grève mooy prise en charge médicale. Mm-hmm. wax naa ko sànq. Mm-hmm. amuñu prise en charge médicale. Mm-hmm. c' est vrai l' année dernière en juin le ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr a fait des efforts en signant un arrêté euh, ministériel en disant que docteurs yi léegi désormais am nañ prise en charge point. waaye application ba dans les hôpitaux c'est tout un problème tey rek yaakaar na am na ku ma l'hôpital Fann ne ma daal dafa gaañu daam mu bëgg a def IRM ñu ne ko doo ko fi defee parce que docteur en spécialisation nga quelle aberration et pourtant nit kooku fa lay xëy suba ba ngoon di liggéey mm. mu dugg seen poste amul motivation amul transport remboursement amul dara après même def examen sax rajo sax da ngay fay mm-hmm. donc ñu laaj leen nag il faut ñu réfléchir ñoom ñoo ñu tënk dugal ci l'hôpital ñuy liggéey ñoom ñoo ñu jox responsabilité ñuy garder opérer def lépp <laughs> léegi nag buñ buggee faju ñu bugg ñu exiger ay question de étudiant ngeen non non non non mm-hmm. il faut qu'il règle définitivement cette question. Mm -hmm. Mais ñun on en avant au-delà de revendiquer ñun dañuy aussi réfléchir et faire des propositions ñun dañ leen ne fi mu ne nii d'accord nañ def mutuelle de santé boo xam ne day tax docteur bi intégré. Mhm. am lu mu participer parce que la santé ne peut pas être gratuite santé faj dafay laaj. Euh, nit ki dugal koom mënta nekk lu gratuit zéro pour cent mhm. pare nañ pour mettre en place une mutuelle de santé dañuy xaar état mu jàppale ñu jàppale ñu ci monter euh, euh, ce ce ce nu mu tudd cette mutuelle de santé jox def ci ay koom su ko defee li ciy des docteur en spécialisation bi jéem ko supporté fi mu ne nii ci foofu lañ toll ñu ngi continuer réflexion même si ça avance très lentement peut-être c'est c'est manque de volonté. réflexion bi yëpp ñu ñoo ko yor di avancer mais c'est très lent. Mm-hmm. ñetteelu poñ bi mooy bourse yi bourse yi. non seulement ñi ko am bariwul. Mhm. waaye ñi ko am sax pour ñu jot ci da daan indi jafe-jafe da ngay dem ba le vingt duñu la fay. Mhm. moo taxoon en août deux mille vingt et ñu dem grève. Mhm. et depuis lors l' état a fait des avancées je le dis. depuis lors bourse bi tardeetul. donc ñoom dafa mel ni faw nga yëngal. pour ñu doog a tontu. ñun nag ñu ngi leen di xaar saa yu tardé ñu dikk. na bourse bi teew te cette année mille vingt deux nous demandons à l'État du Sénégal que qu'il la bourse de spécialisation pour tous les docteurs en spécialisation sénégalais. dañ ko yellool. pourquoi pas sénégalais. en fait état du Sénégal bourse su koy maye doom réew mi la koy may. Mhm, parce que yeneen réew yi aussi seen doom bi ñu ñëw réew moo leen jox bourse ñu ñëw. ku leen di en charge. ñoom aussi seen réew moo leen di jël en charge donc réew mi aussi mënul nekk di former ay étranger te du jël en charge ay doomu réewam réew balaa développé waa réew ma ñëw développé mhm. donc ñu ngi xaar état du Sénégal cette année deux mille vingt et un ngir yàlla nañu jàppale ñu bourse yi bëri mhm. na ñëpp am bourse de spécialisation mhm. mën na bourse du dara du du trois cent mille francs yaakaar naa ki jàng ba am bac jàng bu neuf ans pour être doctorant en spécialisation la de sama réew dafa soxla gynécologue à Jaxaaw dafa soxla cardiologue à Mbapal et cetera kooku réew mi war na ko jox trois cent mille weer bu nekk pour mu mën a fay ay charge am fay location am transport am nekk dans des condition jënd ay livre am mën a jàng pendant quatre ans dellu si liggéeyal réew mi mhm. donc foofu aussi lu am am solo la mhm. ñeenteelu poñ bi tax ñu dem grève mooy dañoo seetlu woon ne stage rural xam nga booy pare spécialisation dañ lay yóbbu ci région yi. Mhm. nga def fa six mois. te six mois boobu daa am lu ñu la ameel deux cent mille kese la. wala trois cent mille motu sax cinq cent. par quatre pour les quatre mois ou six pour les six mois motu sax cinq cent mille li ñu la ameel. Mhm. mais pour nga jot ci mën nga cee daaw un an état du la fay. Mhm. à travers le ministère de la santé. looloo taxoon ñu dem grève et effectivement on a compris qu'en réalité li taxoon mooy question de coordination kese la woon. l'administration on comprend Mhm. mais depuis euh, grève boobu ba tey tënk nañ ko xam fu ñuy jaar fu ñuy déposer kayit yi nga xam ne boo jógee ISRA nga ñib si état jox la lim la amee la naam bariwul ndax bëgguma dugg ci chiffre exact ruus naa ko sax mhm. wax mhm. waaye eggul sax cinq cent mille pour six mois boo dem ci àll bi liggéey ko donc lu amoo fa dara xamoo fa sax naar bi jógee Égypte wala jógee Guinée Conakry bu ñëwee dañ koy yóbbu jaxaaw pendant six mois obligatoire

des ci loolu ba léegi docteur mu mel ni ci sa biir wax da nga dafa mel ni dafa am déséquilibre ci lépp lu jëm ci wàllum système bi parce que bu ma la comprendre wax nga ne di nga nekk garde ci hôpital bi nga nekk euh, yaay assuré sécurité wala yaay assuré lépp lu jëm ci yenn maladie vingt quatre heures quarante huit heures euh, après noon noonu rek mu mel ni yow bénévolat ngay def te de l'autre côté am na ñoo xamante ne dañuy rentrer dans leur fond wax nga sax euh, aberration système bi la jàpp ne moom moo nekk ci ginnaaw ak faay boobu vraiment naka la ñu war def pour combler gab boobu. li ci ginnaaw loolu benn affaire kese la ce système la ça profite à quelques-uns dafa am ñu ñu mu arrangé. Mhm. loolu kese la. Mhm. tey eh, bu ñuy wax ni ci takku takkusaan bi dugal l'hôpital Le Dantec tout de suite nga def enquête ña fa nekk heure bi yépp quatre-vingt-dix pour cent c'est de docteurs en spécialisation. Mhm. fonctionnaires yi ñibbi nañ euh, professeurs yi ñibbi nañ. ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. léegi nag ñooñu toog noonu ñu naan leen non vous êtes da ngeen di jàng et cetera est vrai di jàng. Mm-hmm. c' est la spécialisation. Mm-hmm. on apprend sur de l'humain c'est est vrai. mais il faut le minimum le minimum mooy kooku jox ko mu naan jox ko fu mu tëdd. jéem a la rembourser ko à peu près ses charges ses charges du dara du dul ticket bus. carburant et mm-hmm. mais mooy jëndal boppam lekk et cetera mooy jël téléphone am woo urgence yi woo ambulance et cetera ce système tout rien n'est harmonisé rien n'est cohérent en réalité et loolu moo indi tey docteur en spécialisation en 2021 ñu toog Sénégal di yuuxu yeneen réew yi avancé dañuy def ay publicité pour yeneen docteur ñëw seen réew liggéey mm-hmm. lu mel Canada lu mel ni sax Afrique de l'Ouest Algérie Maroc c'est des gens qui ont avancé ils ont mis un système bu ñu tuddee système de résidanat tey affaire spécialisation dañ ko harmoniser dépassé nañu système mu résidanat mooy képp ku bugg a dem spécialisation de am concours national bi ñuy def mhm. les meilleurs choisir fu ñu bugg a dem mhm. ñeneen ñi choisir ba bu ñuy kiy mujjee choisir fu mu bugg a dem selon place yi des selon les la planification de l'État mhm. et ku nekk ñu jox la sa sa salaire minimum jox la say droit congé soxla jox la say devoir yi nga xam ne aussi soo ko deful dañuy teg daan saka kaw mhm. et cetera mhm. tout est organisé mhm. mais ici on a deux systèmes système euh, internat <laughs> système euh, spécialisation qu'on appelle le système DES mais il faut que l'État réfléchisse et il faut surtout que l'État def lu ñu tuddee planification encore une fois c'est la planification mais surtout c'est la coordination mais ce qui manque je crois à mon avis c'est une question d'un système qui profite à certains. À quelques-uns. d'accord euh, docteur mu mel ni dispari disparité bi dafa euh, am solo loolu ñu des ci wàllu woowu te pourtant dafa mel ni dafa xaw a contradictoire ndax bu mel bu fekkente ne da nga prôner la santé pour tous alors que amuloo assez de ressources humaines ñu war a wu wax nga ko nii rek ci kaw en tintamarre wala en fanfare te amul li nga xamante ne moom mooy les mesures d'accompagnement loolu slogan yooyu tamit la santé pour tous alors que les conditions ne sont pas réunies les conditions, on les crée. Les conditions, on les améliore. Mais les conditions pour que ça, ça aille de l'avant, il faut d'abord de la volonté. Mm -hmm. Mais d'abord, il faut faire un diagnostic du système. Le système de formation, je parle du système de formation des médecins. Mm -hmm. D'abord, à l'étape initiale. Docteur Olof. Oui, euh, système euh, formation, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum santé. Mhm. il faut ñu def diagnostic bi xool li doxul. li fi nekk depuis 1960 les mêmes textes. le monde avance. il faut ñu xool d'abord fi mu ne nii deux mille vingt deux fan la Sénégal tollu en termes de spécialisation ñu def planification or euh, l'organisation mondiale de la santé xam na tey dëkk bu nekk. ñaata habitant ñaata médecin ñu xam li manqué ñu mën a def planification fii ak dix ans fii ak vingt ans ñu mën a résorber ces gaps voilà loolu loolu kese moom manqué je crois à ce à ce système mm-hmm. te il faut ñu ñu dem côté boobu mm-hmm. te ñun nag duñ xaar état ñun dañuy réfléchir mm association commerce dafay réfléchir e dafay proposer des solutions nekkuñ fii rek pour yuuxu mais tey ci question par exemple congé de maternité encore une fois c' est un point qui mhm. boo xam ne. def ñu def ñu ño soxal trop trop mhm, trop. Mhm, dañoo ne état euh, seen bon état on peut dire parce que démembrement état la l'université tey noo ñu jàppee ñu ne mun nañu yéen ak étudiant premier année bi. vous avez le même statut. alors que man tey kut nee na du ma jël en charge parce que nekkatuma étudiant simple je suis un docteur j'ai soutenu mon doctorat d'état kut du ma jël en charge dans le service médical du kut. donc lu des ministère de la santé ak ministère de l'enseignement supérieur ak ministère des finances il faut qu'ils réfléchissent ñoom ñet pour xool yan yan yan ban statut la ñuy teg pour permettre et protéger ce docteur en spécialisation parce que ñu ñooy le futur de la santé en Afrique et au Sénégal en particulier donc daal mu nekk loo xam ne pour man c'est une question de volonté de l'État c'est une question également de de planification et après C'est ça qui nous permettra de d'harmoniser tout dans un cadre cohérent pour avoir un système de santé qui va décoller. On a de l'espoir, nous continuons à faire des propositions et je crois que ce deuxième mandat, je, je, je rappelle que ne samedi passé lañ ma euh, falaat pour deuxième mandat continuer liggéey bi nga xam ne sum nañ ko depuis daaw. Mm-hmm. ñu ngi woo état du Sénégal encore une fois mu prêter oreille attentive à nos revendications mu xool li ñuy jàmbat li ñuy yuuxu lan la. Mm-hmm. blouse blanche boo gisee mu yuuxu rek am na lu tax. Mm-hmm. amuñu temps. ku nekk si ñun tey dafa waroon toog di defar ay article di jàng ay leçons entre guillemets di nekk o près des malades mais warul nekk fii di lijjante <laughs> transport bourse non non non non il y a des gens qu'on paye pour régler ces ces questions là mm-hmm. c'est pas à nous de de non non non mm-hmm. notre place c'est l'hôpital notre place c'est la science c'est c'est c'est c'est véritablement être auprès des populations mm-hmm. loolooy suñu rôle mais am nañ yaakaar ci mandat bii di ñëw à surtout gouvernement bii di ñëw ñu indi ay mesures pour répondre à nos besoins c'est là où on les attend et nous gardons espoir d'accord euh, docteur euh, Mbaye Sena euh, wax nga ko ci sa biir wax léegi samedi dernier lañ la tabaat muy sa deuxième fois ngay jiite kuréel bii di COMES mais laata ñuy dem ci tab bi nga la tabaat mu bees mandat bi yoroon nga ko ñu bëggoon xam rek ci ñaata at nga ko yoroon ak tamit boo ñu doon defal sa bilan premier mandat lan nga ñu ci mën a wax jafe-jafe yi lan nga fekkee woon COMES ak touche particulière bi nga xamante ne apporté nga ko duru premier mandat bi Euh, yaakaar naa question boobu question piège la parce que on ne peut pas être euh, maître et juge comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. en tout cas fekk nañ commerce boo xam ne euh, am na ñu fi nekk ñoo ko taxawal ba tey mm-hmm. ñun ñu fekk ba bëgg ko ba nekk président bi donc ñooñu faw ñu gërëm leen sant leen ci seen liggéey ki ci mujj di président Gilles Dass Thiaw ak équipe am ñu ngi leen di gërëm. Mm-hmm. commerce bu ñu ko fekkee leen rek lañ njëkk defar man j'aime les chiffres mooy mettre en place les statistiques. xam li xew. xool budget yi. yow maa du mathématicien nekk comme da ngaa. c'est vrai bëggoon naa mathématique parce que en fait damaa gëm ne tant que amoo chiffre. mënoo commenter mënoo planifier. loolu la njëkk lijjanti xool ñaata bu dees lañ docteur en spécialisation lañ am. Mhm. ñaata ñoo sénégalais ñaata ñooy góor ñaata ñooy jigéen ñaata aussi ñoo am bourse ñaata ñoo amul bourse. Mhm. ñaata ñoo nekk contractuel dans une structure X ñaata ñoo amul dara comme revenu. Mhm. ñaata ñoo ñooy jigéen ñu marié ak ñu mariéwul et cetera ci biir loolu lañ doog a def suñu proposition. Mm-hmm. amoon nañu yéene bu bëree bëri man mhm. premier mandat malheureusement euh, la le contexte Covid a fait que yu bëree bëri mënuñ ko réaliser ndax dañoo dafa ralentir mhm. beaucoup d'entre nous ont, ont chopé le virus malheureusement beaucoup ont été hospitalisés mhm. etc ce qui fait qu'on n'a pas pu réaliser nos activités sociales mais surtout nos activités scientifiques parce qu'on avait le projet de mettre en place maintenant ce qu'on appelle les journées scientifiques docteur nga baal ma nga dellu si olof ci dañoo amoon yéene def lu ñu dee les journées scientifiques du commerce muy nekk ndaje boo xam ne at bu nekk day am ñiy waxtaanee xam-xam. pour tënk ko. Mhm. mais mënuñ ko def état waxoon nañu ne amoon nañ yéen a jàppale ñu mais contexte Covid moo tax defuñ ko mais comme xam nañ tamit ñun dañoo am njëriñ ci population bi te population bi tamit du ñëpp a am euh, le pouvoir d'achat dem hôpital faju amoon nañ yéene génn ñaari yoon ci at bi dem ci ré ci euh, dëkk dëkk dëkkaat yi sori. Mhm. Ah, olof bi leerul. Mhm. pour mën a faj population bi fa nekk ñu tuddee ko caravane médicale. ñu def ko ñaari yoon on avait ciblé le sud parce que dafa am contexte particulier bu xewoon Kolda en l'année 2021 avec problème de gynécologue amoon nañ aussi yéene dem dans le nord mm-hmm. mel ni Matam ak Ranérou ak Saint-Louis mais malheureusement contexte Covid moo tax defuñu ko malgré la volonté du ministère de la santé à nous accompagner mais ren incha allah 2022 bu si yàlla àndee dinañ ko réaliser bu soobee yàlla mm-hmm. ndax dañoo jàpp ne ci réew quel que soit niveau boo tollu am na loo mën a indil sa te loolu nag mooy fa ngay liggéeyee ak sa xam-xam foofu rek nga mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy population bi ñun xam-xam lañ am amuñu moyen amuñu salaire amuñu xaalis mais am nañ yéene jël suñu xam-xam def ko au service des populations loolu tamit ñu ciy xaar état lu bu baax a baax pour cette année deux mille vingt deux incha allah nañ ci liggéey bu liggéey bu am am solo. Mm-hmm. waaye tamit li nga xam ne réaliser nañ ko mën nañu wax ni ci biir sunu mandat. Mm-hmm. la ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr def lu ñu tuddee arrêté ministériel euh, ministériel pour donner. au docteur en spécialisation le droit d'avoir une prise en charge médicale. Mm-hmm. mais fi ne nii application bi pose problème. tu vas pour avoir ta prise charge dañu lay gololoo dàq la fu nekk ressources humaines ña fay nekk boo ñëwee indi kayit loo indi ñu ne non waroo am prise en charge mm. et cetera donc hôpitaux yi dafa mel ni seen intérêt la ñuy xool en réalité mm. dafa am ñuy liggéey gratuitement au bénéfice de l'hôpital mais l'hôpital n'a pas senti l'obligation de les accompagner ne serait resque qu'assurer leur prise en charge médicale ku feebar ñu faj la te doo fay dara bu desee jënd gara peut-être nga dem jëndi mm-hmm. loolu tamit nekk loo xam ne am nañ ci acquis mais surtout le premier mandat li li li ñu gën a liggéey mooy ça nous a permis de mettre les choses à leur niveau mm-hmm. ça nous a permis d'être ouverts Euh, face aux institutions de l'État, que ce soit les ministères, que ce soit les directions, que ce soit l'ordre des médecins, def en tout cas euh, fondement bi. Hmm. donc deuxième mandat lañ am yaakaar droga tabax ci kaw fondement bi mu jëm ci kaw loolu nag mooy réaliser li nga xam ne mooy nekk sunu programme annuel. Hmm. ñu ngi koy liggéey commission yaa ngi liggéey. Hmm. jox naa leen délai un mois. pour que rapidement ñu mettre en place des des des programmes d'activité annuels qui sont très bien faits. qui sont programmés budgétisés su ko defee ñu wuti accompagnement mhm. mais surtout très très rapidement dinañ prendre contact avec les institutions de l'État comme l'Assemblée nationale comme le Haut Conseil des collectivités locales comme la primature s'il y a primature bien sûr pour que les questions fondamentales qui manque comme le, le, congé de maternité, il faut que l'État du Sénégal au plus haut sommet prenne ses responsabilités. Il faut que Euh, aujourd'hui comment dirais ni ñu koy tuddee euh, euh, fii fii nga xam ne foofu fa la ñuy liggéey lijjante affaire travail ak yooyu. inspection du travail. il faut que ñu xam ne ñun nekkatuñu des stagiaires simples. Mhm. ku nekk si ñun da ngaa inscrire l'ordre des médecins am sa diplôme d'état en médecine. Mhm. mënoo xëy hôpital di liggéey huit heures seize heures di fanaan vingt quatre heures ou plus comme gynéco ils font heures à l'hôpital ñu ne la tu es un simple mhm. étudiant. loolu c'est inhumain c'est pas compréhensible il faut que l'inspection du travail se prononce sur la question et change ses textes si c'est une question de de texte ou de virgule il faut ñu à la motivation ça c'est c'est une sociale que nous c'est un combat de principe nu nous nous nous nous nous navis wuñu tey arrêté donc loolu combat boobu ci ci ci ci ci li dem ci ci ci wàll boobu. ñu ngi xaar état aussi mu jàppale. Euh, vraiment euh, bi ñu déggee euh, communiqué conseil des ministre am nañ ci yaakaar ça veut dire que état mu ngi mu ngi ñuy déglu. Mm-hmm. état mu ngi dégg suñuy proposition looloo tax yaakaar naa son excellence le président Macky Sall wax ministère yooyu ñu réfléchir ci li nga xamante ne mooy spécialisation. Mm-hmm. gis nañ communiqué bi dem le 3 février 2022 ñu ngi leen di xaar ci réalisation bi le plus rapidement possible. Mm-hmm. <coughs> mbokk auditeurs yi sama invité bi tey moom euh, ñoo ko déggandoo te man xam naa ne ñi ñi ñi ñiy déglu émission bi ñu ci bëri bëri olof lañu mais di ngeen ko comprendre yéen ñi xam naa pour mu expliquer pour mu leer loolu moo tax muy euh, muy muy mettre l'accent si ci ci muy mettre accent bi ci ci français bi mbokk auditeurs yi fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé comme ni ma leen ko waxee ci njëlbéentel bi am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur mbay seen docteur mbay seen nag nekk euh, président bu COMES COMES gën ko xam ci collectif des médecins pharmaciens ak chirurgiens dentistes bu Sénégal waaye tamit euh, mu nekk li nga xamante ne moom moo di endocrinologue diabétologue nutrition ñëw rek ci eh, pàcc bi nga xamante ne moom mooy spécialité docteur euh, endocrinologue diabétologue ak nutrition ban différence la euh, la ñu mën a jàpp ci médecin diabétologue wala médecin endocrinologue na benn la wala dafa am lu ñu wute Euh, balaa ñuy euh, ñuy tëj euh, fenêtre bi nga xam ne page bi nga xam ne ci lañ mujjee ci question revendicative commerce mënuma ko tëj te gërëmuma sant ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale mhm. d'abord dañuy sant di gërëm suñuy enseignant mhm. suñuy professeur d'université parce que yaakaar naa su nekku doon ñoom su nekku doon l'université su nekku doon les facultés de médecine du Sénégal tey duñ fi taxaw di wax donc faw ñu gërëm leen santi leen naam suñuy revendication yëpp ñu ngi ànd ak ñun ñoom mm-hmm. waaye dafa nekk loo xam di ñoom ñoo ko war a régler c'est politique qui doivent régler ces questions. ñoom am nañ volonté ñu ngi ñuy conseiller di ñu woo di ñu euh, en tout cas vraiment di ñu jàppale ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Uh-huh. waaye tamit di gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo ñu am confiance euh, fal ñu ñu nekk à la tête de cette institution ki est le commerce. Uh-huh. ñoom tamit ñu leen di gërëm. Uh-huh. di leen wax rek ne nañ rester soudés. nañu booloo nañu continuer di réfléchir mais surtout nañu continuer di bëgg malade yi di leen jege di faj seen ajo ala kuli xaal dina fay bés incha allah. Mhm. alors pour ñëw ci sa laaj laaj bi mooy lan mooy endocrinologie diabétologie euh, ou métabolisme nutrition. Euh, endocrinologie mooy bépp feebar boo xamante ne mu ngi jóge ci luñ tuddee une glande une glande mooy cër bu nekk ci yaram. Mhm. di di di joxe ay ferñeent ci deret bi ñuy am lu ñuy njeexital ci yaram bi. lu mel ni lu gën a siiw feebaru goitre yaakaar naa soo ne goitre ñëpp xam. xam nañ ko waaw fekk nag peut-être terminologie bi mooy problème mais mhm. noonu lañ ko population bi comprendre yi da ngay gis tamit ay couple yoo xam ne dañoo marié am problème am doom mhm. te mu nekk ay problème endocrinien ay mhm. problème hormone la ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ci bopp bi ay ñeneen euh, xaw nan laa koy tënkee ci olof bi daal day xaw a compliqué mais feebar yooyu la bi ci gën a siiw yaakaar naa goitre la ak ay ay ay ay ay particularité diabétologie mu ngi ci nekk feebar boo xam ne feebaru suukar la Mhm. suukar bu yéeg ci biir dërët bi ci euh, ay fan ou ay weer yu bëri ñu tuddee ko diabète loolu tamit nekk spécialité boo xam ne fi mu ne nii ah yaakaar naa ne population bi mu ngi leen di sonal bu baax a baax waaye li indi feebar suukar lu ci bëri problème mu euh, nekkin la. nekkin wa maanaam. ci façon wu lekkin bi ah, ak la ngay lekk waaye tamit ci façon wu na nekkee ci société bi la ci en terme de activité physique mais également en terme de bien-être loolu mooy problème nutrition mm-hmm. donc lekkin bu baaxul day am njeexital ci yaram bi te feebar bi ci gën a siiw di diabète mm-hmm. donc da gis ne donc da ngay nutrition muy euh, ni ñu waroon lekkee ak nekkin habit alimentaire pour être en santé mm-hmm. mais bu amee déficience si ngay ñëw ci pathologie muy syndrome métabolique ak li nga xam ne mooy jabet ci biir mm-hmm. ak tension ak yooyu mm-hmm. loolu nag boo ko booleeg affaire endocrinologie mooy spécialité endocrinologie métabolisme nutrition jéem naa ko tënk ci ci wolof bi xam naa xaw na jafe waaye yaakaar naa auditeurs yeeg auditrices yi dinañ dinañ mën a comprendre lan mooy mhm. suñu spécialité mhm. dafa fekk nag spécialité bu xaw a euh, jeune le Sénégal mhm. parce que am woon euh, spécialité bi bu yàggul quatre ans cinq ans la am Sénégal looloo tax ñu bëri xamuñ ko mais ñu ngi commencé liggéey avec une société savante qui s'appelle Socédian société service d'endocrinologie diabétologie nutrition ñu ciy gërëm di sant sunu cher maître notre professeur euh, professeur Abdoulaye Leye mhm. qui est le chef de service du euh, chef de service de d'endocrinologie diabétologie du CHU de Pikine d'accord euh, ñu des ci li nga xamante ne moom mooy diabète bi ah wax nga ko ci sa biir wax jamono yu ñu toll jabet euh, defe naa ne ñu bëri sonal ne leen te bu njëkk ba comme ni nga ko waxee dañu daan wax peut-être boo tuutee wala boo amee yenn yi lañ ko gis mais mu mel ni léegi euh, docteur Mbaye Sène diabète apparemment dafa mel ni amatul âge wala amatul yenn yi ndax da ngay dem hôpital nga gis xale boo xamante ne dañ ne kii diabète bi daf ko sonal loolu aussi lan nga ñu ci wax niveau boobu sensibilisation bi moo des wala détection bi moom noonu nga ñu ci mën a wax. li ñu ci mën a wax rek mooy at yi passé c'est vrai sunu expérience mhm. bariegul ci diabétologie yaakaar naa ay at rek la mhm. waaye li ñu seetlu mooy li études wone mooy dafa nekk phénomène boo xam ne dafay gën di bëri di gën di law di diabète euh, kër goo dugg rek am na ku jabet wala euh, mbopp diabète mhm. mu nekk loo xam ne jot na ñu réfléchir jot na aussi ñu arrêté ko te lu ko indi bokk na ci lekkin bi. Mhm. nu ñuy lekkee ak lu ñuy lekk. bokk na ci tey aussi urbanisation mooy kenn ñaqatul ñëpp a ngi toog seen auto climatisé ñëpp a ngi lekk lu neex ah. mhm. euh, ak yeneen ak yeneen mhm. mu nekk loo xam ne aussi une d'une part dafa nekk lu lu ñuy doon euh, c'est vrai il faut comprendre que diabète amul un diabète il y a des mooy du benn diabète am dafa am ay jabet yu bëri te bokkuñu dafa am diabète lu nit yi gën a xam mooy type un type deux. Mm-hmm. mais dafa am des diabètes secondaires dafa ci wàllum ëmb ki yu mel noonu hmm. yooyu yëpp nekk ay des diabètes qui ont dont chacune chacun a une particularité looloo tax mu nekk une discipline hmm. euh, une spécialité à part hmm. loolu nag li ko indi mooy li ma wax sànk rek mooy nekkin bi de façon résumée euh, ñu gis ne tamit law bi fépp la ci àdduna du se du Afrique kese mais fépp waaye léegi li ci gën a euh, particulier mooy da ngay gis léegi xale yu ndaw retrouvé avec un diabète de type 2 pas 1 mais 2. Hmm. mu nekk loo xam ne euh, jot na ñu génn ça mérite interrogation mais surtout ça mérite pas seulement des interrogations mais des des choses concrètes il faut que les politiques les décideurs donc en collaboration avec les sociétés savantes notamment la Socédian réfléchissent à, à toujours ce que je dis à la planification mais surtout à des chiffres. Mm-hmm. Euh, enquête bi mujjee Sénégal yaakaar naa mu ngi doon wax ne euh, quatre trois à quatre pour cent des Sénégalais étaient diabétiques dans le nord. mais sax enquête bu yàgg la fi mu ne nii ñu ngi waajal beneen enquête pour xool ñi ban prévalence lañ am ci diabète mais yaa am na njort ne dina nekk des chiffres alarmantes mm-hmm. et nag li ci gën a am solo mooy fi mu ne nii ñun spécialistes yi ñun bépp acteur de la santé ñu gën a euh, gën a def on travaille sur ça en terme de prévention. Mhm. prévention bi mooy ñi diabète fi mu ne nii na leen état jàppale ci garab yi cher na trop. prise en charge bi. waaw analyse yi cher na trop. faw état gën a ne naam am na des efforts mais faw ñu gën cee dugal loxo leneen li mooy il faut que état aussi gën a jàppale population bi en terme de médecins spécialistes encore une fois. Mm-hmm. maa ngi wax ne tey mën nañu résumer euh, spécialiste endocrinologie yëpp Dakar. ci ñaari hôpital wala benn muy mm-hmm. hôpital Thiaroye xoolal loolu kon faw état gën a joxe bourse yi nit yi mën a dem spécialisé diabète pour mën a servir réew mi. Mhm. mais faw état gën a communiquer parce que problème bi gën a ngande pour man mooy ñàkk information et surtout la bonne information. population bi dañuy jabet toog fi naan dañuy naan nebedaay et cetera duñ dem faju te xamuñ ne li gën a danger ci jabet mooy bu feeñee ci yow à part quelques symptômes yaram bi dafa diis damay tuur ndox lu bëri très souvent doo sentir dara. te looloy looloy dafa bëri voilà on peut le dire comme ça mm-hmm. mais looloy erreur bi mm-hmm. boobu nag nit ki du du du ci farlu fekk mu ngi yàq lu am solo ci sa yaram ci say organe lu mel ni rein lu mel ni xol bi lu mel ni euh, euh, sidit yi yóbbu deret bi euh, ak bët yeeg et cetera très souvent nag malade dañuy xaar bu am complication vasculaire doog a ñëw hôpital. balaa ñuy ñëw day mm-hmm. loolu nag moo tax ñu war a euh, gën di waxtaan ak population bi ci disponibilité spécialiste ci rajo yi. Mm-hmm. comme ni ma ko defee. Mm-hmm. Euh, journaliste bu la taataan euh, émission nga mën a fexe vraiment malgré le manque de temps nga répondre ko. communiquer waxtaan ak population bi su ko defee rek dinañ gën di egg hôpital faj bi teel teel euh, ñu teel ko def su ko defee ñu mën a prévenir les complications. Mhm. donc diabétique mën na faju ba mel ni moom ku amul jabet ñoom ñaar ñoo yem mhm. loolu mën na nekk la mais ginnaaw nga teel a faju ginnaaw aussi nga respecter say rendez-vous mhm. respecter say analyse et cetera mhm. voilà loolu rek laa amoon lu may wax ci wàll boobu en tout cas mu nekk une préoccupation un problème de de santé publique jabet euh, euh, bi wax nga ko ah dañuy dem peut-être xam ne am nañu feebar ñuy dem di jël yenn médicament yi xam naa pour calmer douleur bi ba yenn saay bu ñuy ñëw au niveau ci structure hospitalière yi dafay xaw a yàgg tamit euh, njëg bi moo xaw cher boo xalaatee ne war nga def analyse bi mu cher wala tamit ñu ñu restreindre la par rapport ak sa habitude alimentaire yi foofu tamit ndax euh, du du compliqué ci patient bi nga xamante ne vraiment bëgg na feju mais les moyens comme ni ñu koy waxee ne suivent pas toujours man damay wax ne euh, il y toujours une solution. D'accord. Il y a toujours une solution. C'est encore une fois une question d'organisation du système de santé, mm -hmm. mais surtout une question de planification et des décideurs. tey OMS dafa jël xaalis bu bari def ko ci sida. def ko ci tuberculose. Mhm. def ko ci yeneen feebar infectieuse c'est bien. gis nañ ne résultat investissement boobu looy l'OMS def état du Sénégal def ko am na njeexital ci feebar yooyu ci Sénégal waaye at yi passé ñëw seetlu ne yeneen feebar non transmissible mooy yi dul wàllante lu mel ni diabète tension cholestérol ak yeneen feebar yooyu jël place bi fi mu ne nii moo tax mhm. li may doon wax tout à l'heure encore une fois il faut les chiffres mhm. il faut de la planification fi mu ne ni les budgets euh, alloués aux maladies non transmissibles foog ñu xoolaat ko yokku ko mën a jàppale d'abord système de santé bi en terme de ressources humaines et de structure de plateau technique mais aussi et surtout jàppale population bi ci question wu njëgu garab yi mais ci question wu analyse yi mais également euh, moon a def euh, plus de spécialistes qui communiquent, qui partagent l'information pour prévenir les complications et même prévenir le diabète. tey population Dakar ñaata ñoo ciy def activités physique régulière. Mm-hmm. ñaata ñooy lekk repas. équilibré dafa jafe même ci docteurs yi sax mm. dafa jafe parce que condition yi da lépp a manqué on peut dire niveau de vie bi moo compliqué et puis Sénégal mentalité bi aussi am na ñoo xam ne ils préfèrent dem ci ay xew euh, battre que jënd seen garab et cetera loolu lépp nekk un ensemble boo xam ne il faut une réflexion globale anthropologie sociale pour mën a euh, am donc les les bonnes pistes de solution mhm. mais am nañ yaakaar ci euh, ndaw yi ñu gis fi mu ne nii ñuy formé wu ci euh, système bi nu muy avancé fi mu ne nii mooy état du Sénégal jéeg jéego yu ñu am mhm. am nañ yaakaar ne dinañ am les moyens qu'il faut pour euh, effectivement euh, xeex jàngoro boobu di di diabète mm-hmm. mm-hmm. voilà. Euh, ñu mu mel ni jàngoro bi nga xamante ne moom moo di jabet su ma la déggee bu baax a baax par rapport ak suñu habitude alimentaire yi ak sédentarité bi ñuy def ba muy jur yenn saay ay obésité ak ay lu ñuy duppee surpoids mais docteur du dénigrer yenn bouillon yi mais yenn saay dañuy farataal di indexé ñun jigéen yi à savoir suñu façon togg des dañuy sonsal diwlin bi ba bëri wala dañuy utiliser poobar bu bëri wala dañuy utiliser yenn épices yi pour relever goût bi foofu tamit bëggoon naa nga euh, leeral ñun ñu tuuti par rapport ak suñu façon de euh, nu ñuy toggee apparemment dafa mel ni bokk na ci ci facteurs yi même bu fekkente ne dafa xaw a infime. oui euh, tout a fait tout à fait li ma doon wax rek nutrition mooy li li nga xam ne moom lañu waroon def pour am am nekk en bonne santé li ci défaillant rek sa ça va, va tendre vers la pathologie. Mm-hmm. muy feebar bi. donc boo buggee xeex feebar bi commencé la xeex ci liy indi feebar bi te li ci gën a am solo bokk na ci suñuy façon lekkin muy alimentation bi tudd nga nu ñuy toggee waaye tamit lu ñuy togg. surtout loolu tamit lu am am solo la xam naa mënuñ ko tënk ci émission waaye li li ñu ma mën a lancer ci ay message pour suñuy auditeurs et auditrices. Mm-hmm. mooy li gën a am solo mooy lekkin bi moyen mu mu mu lu mu gën a ñàkk suukar ci lekk global bi. Mm-hmm. lu mu gën a ñàkk lu gras lu graisse lu mu gën a ñàkk niin gën a baax c'est les principes mm-hmm. fondamentaux. nit ki aussi war na fexe quel soit lu muy liggéey quel que nu muy euh, nu mu ñàkkee temps fexe bokk boole ci programme semaine am ñaari yoon yu mu gën dem defi sport lu am am solo lu am am solo te yooyu doo xaar ba jabet sax mhm. da nga ko war a boole ci sa calendrier hygiène de vie tu l'as di nelaw nelaw bu doy di ñëwaat encore une fois ci lekk yi maam bi bàyyi woon mhm. muy ay fruits ay légumes naan ndox mu bëri mhm. su ko defee incha allah mën nañ am yaakaar ne fléau di continuer noonu mhm. waaye su la dalee aussi nga nangu ko nga affronter ko mhm. affronter ko mooy ama sa docteur di di dem say rendez-vous di jógoog moom di évoluer si di def say analyse mm-hmm. cher na c'est vrai et que pouvoir d'achat bi demewul noonu waaye pexe amul mm-hmm. pexe amul mm-hmm. yaakaar naa pexe amul foog ñu gën a euh, farataal loolu su ko defee rek ñu ñu gën a ñongal seen wérgu yaram euh, euh, docteur ñu jeexalee foofu afron bi yaa ko tudd mu mel ni boo demee hôpital bu ñu la détecté da nga am jabet dafa mel ni psychologiquement tout au début daf lay xaw a peser waaw dafay xaw a euh, poser beaucoup de malades quand mhm. am na ñu ñuy jooy ñuy def lu nekk mais pourtant jaru ko. Euh, parce que toujours ce que je disais tout à l'heure c'est une question de société. ok c'est une question de compréhension am na ñuy ruus a dem wax sax ne damaa am jabet am na ñoo xam ne boo leen defalee traitement sax seen poids wàññeeku ñu ne non société ñu may gisee et cetera ni ma jeexee fekk nag pourtant mën na am moo gën sa wér-gu-yaram donc si encore une fois c'est une question d'apparence mm-hmm. te loolu faw ñu cliver ces questions là faw ñu euh, on arrive à ce que à éduquer la population ñu xam li gën ci seen wergu yaram te yaakaar naa population ñuy commencé yeewu. Mm-hmm. da ngay gis ci quartier yi ay équipe randonnée pédestre. Mm-hmm. da ngay gis euh, yu mel noonu mu nekk loo xam ne dañ ko war a encourager. Mm-hmm. waaye tamit ñu xam ne fajum diabète du du médecin spécialiste bi kese généraliste bi def ci am liggéey bu am am solo. boo dépensé nit ki jabet référé ko à temps mu gisi spécialiste mu koy suivre su fekkee yow koy suivre aussi il faut nga am. Euh, li nga xamante ne mooy le bagage intellectuel scientifique qu'il faut pour bien suivre sa malade te loolu mënoo ko am ci sa formation bi nga amoon université à l'époque non il faut se former et ça c'est la formation médicale continue j'invite à, euh, euh, tous les praticiens, mmh. quelle que soit leur spécialité, nous mettre dans leur agenda ce qu'on appelle la formation médicale continue mhm. et réfléchir dans ce cadre permet véritablement gën a ñongal faj bi ndax médecine dix ans yu nekk dañoo ne xam-xam bi day renouveler mhm. la nga ak léegi dafay changer mhm. molécules yu bees yeneen ñu arrêté leen et cetera donc médecin bi aussi faw mu nekk au diapason de l'actualité médicale loolu yëpp di loo xamante ne ay pour véritablement faire face à cette à, à ce fléau <laughs> euh, waxtaan wi am na solo docteur mbay seen waaye mu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ca. ah di leen gërëm di leen sant bu baax a baax euh, di gërëm di sant suñu auditeurs et auditrices de la rajo rajo Rewmi FM di leen véritablement sant bu baax a baax waaye di encore une fois revenir à no points essentiels mm-hmm. mooy ñun commerce ñu ngi euh, ñu ngi ñaan état du Sénégal encore une fois mu jàppale le docteurs en spécialisation bi mm-hmm. li wax ni man la yàlla jox euh, kaddu ma war ko wax pour ñëpp dégg ko mm-hmm. waaye ñi nekk seen kër tey sonn bari na te nag docteur en spécialiste soit dañoo feebar mënuñu faju soit dañuy xëy sax bañ a dem hôpital amuñu paas wala seen oto amul carburant mhm. jënal seen papa may na leen oto waaye amuñu liñ jëndee carburant ñi nekk ay boroom njaboot et cetera yooyu yëpp nekk loo xam ne quand tu n'es pas boo nekkul ci biir doo ko xam man la ñëpp di fekk si di ma di seen soxla mhm. mu nekk loo xam ne on ne peut pas continuer comme ça il faut réfléchir mhm. et protéger tout le monde parce que médecin bi nga def dans les bonnes conditions il est bien formé après il sera bien auprès des population te loolu rek am solo njeexital bi rek du dara du dul faj doomu aadama yi santé. Mhm. donc ñuy xaar encore une fois du Sénégal à travers se ministère et divisions ñu gën a jàppale les docteurs spécialisation ak ONG euh, entreprise entreprises yi jàppale docteurs en spécialisation yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm. waaye tamit di ñaaxaat sunu mbokku docteurs en spécialisation yi ñu gën a dëgër rek. Mhm. dina baax incha allah nañu gën a gëm li ñuy li ñuy li ñuy def gën a bëgg seen bopp waaye nag bu leen kenn piétiner dañ gëm seen bopp seen avenir seen loxo nekk bu leen kenn gëmloo ne ñoo yor seen avenir déedéet mhm. nañ def li ñu war a def sa la médecine à ses réalités à ses exigences nañ jox respect ñëpp ku la mag ci médecine jox ko cër bi ko war a jox kuy agent de santé jox ko cër bu mu a euh, bi nga ko war a jox waaye fexeel bu scientifiquement humainement bu la kenn am lu mu la reproché loolu rek laay ñaan suñu collègues yi di santé encore une fois di gërëm seen rajo di leen wax ne on est toujours disponible notre rôle notre mission c'est de communiquer notre rôle c'est de prévenir la meilleure médecine est celle qui est préventive loolu rek laa bëggoon le di leen sant di leen gërëm jërëjëf euh, sant moo di docteur Mbaye Sène ginnaaw bi nga xamante moom moo ci suñu émission bi di SOS santé gàgganti naa ko ba sonn nag auditeurs yi pour mu wax li nga xamante ne moom moo di wolof jëf na ci ay effort waay nag ñu yaakaar ne rek message bi mu doon lancé donte yëkkati na kaddu yi ci ci kàllaama nasaraan mais ma jàpp ne nag la quintessence ma ne li nga wala li nga xamante ne moom wax na ko ci lu bëri yéen comprendre ngeen essence bi fàttali ne mbokku auditeurs yi yéen a ngi yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé amoon mbégte ak bànneex doon dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur mbay seen docteur Mbaye Sène nekk président bu collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal waaye tamit euh, nekk endocrinologue diabétologue nutrition fàttali ne seen émission SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ci beneen émission